ñëpp yal na nu yàlla boole jëggal di sant yàlla mi nga xam ne moom daal moo fi des ba faw ku dul moom bu fekkee juddu nga ñëw àdduna bis boobee lu loo fi yàgg-yàgg bàyyi ko fi moo ci toppaan diggante bi nag yàlla dana fi wàcce ay nattu yu muy nattoo jaam ñi kenn ku ci nekk man caa jot wàllam ak loo xam ne ñëpp koy bokk waaye téewul jullit bi nanguloon na ko ne moom kenn la lu am moo ko amal te it moo tànn ci biir bindeefam yi lu ko soob mu def ko ci subhanahu wa di jaare ci loolu di jaale jullit yëpp réew mi yëpp koo xam ne euh, réew mépp ko ñàkk waaye l'islam bépp ko ñàkk rawat nag ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee ahlul quran ahlul quran jullit yëpp moom lañ waaye am na ñoo xam ne dañoo tànn alquran di ca liggéey di ca xëy di wàcc moom moom taxawaay ba mu amoon moom la sëriñ bi féetale woon ak ahlul quran te loola mooy cër bi gën a rëy ci ab jullit bu dee dëkk bi ñu nekk moom mooy li fi jiitu mooy cër bi jiitu bu cay topp topp ca ndax sëriñ bi ko sancoon ñaanoon na yàlla mu doon daara ba faw te daara daaray jullit alxuraan mooy bopp ba te alxuraan mooy li nga xam ne ku ko jikko te jàng bu demee ba mat mu kallaf bu dee julli mën naa jaaxal nit ñi ba xam lu muy buy julli lu muy wax njàngiinu alxuraan ak ñi jàngale alxuraan ak fañ koy jàngale moom la ko sëriñ bi dénkoon da ko caa fekk ndax kenn la koo xam ne ci biir jullit yi dund gu barkeel la ko yàlla defal dund gu barkeel nag am na ñu koy tuddee gudd fan gudd fan ci ñenn ñi mooy at yu bari diw am na téeméer at ñu ne ah gudd na fan gudd fan mooy lan mooy lu at yee néew néew mu nekk mu dund ko ci mu la mu waroon lam ko waroon dund rek mu jeex yàlla defaloon na ko bis ba mu jógee ci daara la sampaat daara ca teg ba fa bu ñëpp defoon ni moom daara dana dund ba faaw daari alquran ak ak boo xam ne bi bis bu set moo daan tëralal boppam ba fan yii rek yii mujj am na ñu ko si mujj aw waaye téewul léeg-léeg am nañu ci moom lañuy ñuy jànge yàlla dogalit ci góorgóorlu mu tabax jumaa joo xam ne ajjuma ju nekk bu ko fi fekkee fa la ko daan jullee rikk ñu fa daan jullee ji ajjuma buñ ko bàyyi bu fekkee suñ moor lañ fa daan fekki la wax Seydina Abou Bakar la mu waxoon day dellu bañ ko ne yonent bi sallallahu alayhi wa làqu na ku ko bëggoon mu ne saa wax sax ku ko gën a bëgg xamee ko waaye yàlla dafa ko joxoon sago kar nit ñi di def lu nekk mu ne leen képp koo xam ne yàlla nga doon jaamu yàllaa ngi yàlla du fi jóge koo xam ne Muhammad nag nga doon jaamu Muhammad moom jógee na fi te du dellu si waat kon ña fa daan dem daan fa fekk sëñ ma moor nañ xam ne suñ moom moo defalu ko foon boppam ngir ñu di ko fa fekk daf ko fa defoon ngir ñu di fa jaamu ci yàlla rikk buñ ko bàyyi nañu fay dem nañ fa daan demek di fa jullee ji nañ fa jullee jëmm la joj ku jaar ci kaw suuf des na la fàttaliku muy baqaa u zikr waaye ñu bare bare ci jaami yàlla yi yàlla dimbalewu leen ba defar leen asarun tayyib mooy bàyyi fi lu aw nit di jariñoo aw nit jàng nañ ci loxoom alquran jàng ci loxoom xam-xamub diine ba boo leen ca laajee ñu tontu la mu dellu sampaat mbooloo moo xam ne nii kenn ku ci nekk bu xëyee ci lay xëy bokk yi demuk suñ ma moor jaroon na ci réew mi ñu def bis boo xam ne bii Sénégal gépp koy bokk ndax kuñ ne moo yoroon alxuraan moo fi bàyyi ko jar na ko keneen nag wóoruma waaye moom jar na ko koo xam ne ci wàllu jikko ak jëflanteem ak nit ñi lu ñëpp daan bañ ndax lii ak laa ndax ñàkk xam wala di ko bañ ngir bañ ko rek moo ko daan nangu mus sa gàntu dara lu baax te yii xew ci jamono ji mu di ci wax ku ne di ci wax daawu ko ci fekk lu baax rek laa wax su nit ñi tàmbalee wax ay faits weer yëg ngeen lii walla laa mu jëlub téeréem ba ba ñu noppi am njëriñ lool ñaata nit ñoo daan xëy si bu set mu am lu mu leen di def li ci des nag mooy ñaanal ko suñu borom mu gàttandu ko yërmandeem dañ xam ne dund gu gu dal gu goo xam ne di tàmbalee fi jëm ëllëg nit ki mënu koo am ci lu dul yaar yàlla dimbalewoon na ko mu teg ca tànkam mooy al imaanu wal amalu saalih nag laaj ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lan mu ne leen mooy al ixlaasu looy def rek yàlla tax yàlla dimbalewoon na ko ci daana joxe daana yónnee ci nit faj soxlaam te kii mu yónni du xam la muy def kooku ñaata la ak luñ seq ba mu di ko jox waaye laajoon na yonent bi sallallahu alayhi wa lan mooy yaqiin mu ne leen yaqiin mooy looy def na doon dëgg ci yow rek eh, moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku fi bàyyi ko da dégg ñu di ko dàkkantal di ca teg lu nekk rahimahullah rahmatullahi alayhi allahu yarham waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku génn adduna te fekk mi ngi tegoon tànkam ci ixlaas te mooy imaan boole ko di jëfe ponk yi ponk lislaam yi su fi bàyyi ko génn na adduna waaye na wóor ñëpp ne gërëm yàlla gërëm na ko te mooy jëkk gërëm yàlla ndax lam doon séentu ci teg tànkam fa ko yàlla teglu yàlla am na lu raw loola jëf nag ju baax joo xam ni kan ko teg ci ndigalul suñu borom moo tudd al amalu saalih waxuñu loo xam ne yi ko tànnal boppam rek di tàndale ak lu mu baax baax ginnaaw tàndale la tudd amul fu mu ko teg dee su ko wooye al amalu saalih moo tax ñi jàngale bu njëkk daan nañu wax ne nit ki li muy def ci santaane suñu borom yi bu mu seet lu mu cay am waaye na seet fu mu ko teg rek ba xam ko jëf moomu nag ju baax nañu wóor ne mooy yóbbalub nit ki nit ki mënees na koo yónnee ay ñaam mënees na koo ko toftal ci bis bañ koy denc waaye li muy yóbbaale nga xam ne saa buñ ko gisee gis ko mi ngi mel ne kuy tukki la muy yor ci loxoom caak samay yor saa bu agsee boo gisee diw da nga gis saag ba la cay topp nag ci ay yónent yónneel ma diwli yónneel ma diwli am na ñu ko yëg am na ñu ko du yëg mën na caa jot mën na caa bañ a jot moo tax yónent bi sallallahu alayhi wa ku faatu ñett dana ko topp ñaar ña dañuy wàññiku dellu ca dëkk ba ca kër ya kenn des faak moom nit ki bu faatoo bañ di ko gunge euh, ak njabootam ay xaritam ay dëkkandoom ab xameem danañu ko topp ñu fab alalam toppatoo ko ca ak jëfam topp ca waaye suñ dencee ba noppi ba ñaan ba wax la ñuy wax ba noppi njaboot ga dañuy wàññi waat ànd ak xame ba ak xarit yaag wëllëre dëkkandoo ya bu fekkee ci otoom lañ ko tegoon yóbbu ko ca armeel ya otoom day dellu siwaat duñ ko dencaaleeg moom waaye la fay des ak moom ak pax ma la muy xat-xat ci suñu gis mooy jëfam loolu mooy caag soo su ko tukki di yóbbaale nga xam ne fu mu jëm jëm fa ak moom ay jëfam nekk ca ay këyitam yëm munta ñàkk te neex a yor euh, loolu nag mooy jëf ju baax bu def safaan it yàlla nañu ci yàlla musal noonu lay demee moom fu mu jëm fu mu dugg mu dugg moo tax yonent bi sallallahu alayhi mooy kër gu gu nit di jëkk a dugg moo dem aljanna wala sawara su fekkee bàmmeel moomu lépp jàmm kanam la jëm waaye safaan ba mooy safaan ba yàlla nañu ci yàlla musal sëñ bu mag bi nag am na dénkaane bu mu woon boo xam ne dañu ko ne am na ku ko nettali bëkk démb fekk suñ mamoor nee na suñ mamoor a gént dégg suñ tubaa muy wax borom tubaa ne ko neel fere yi yëngu bi bari na lool waaye nañ xam ne ku dugg ci bam da nga xam ne yàlla fo faluwut man ñi faluwuma loolu nag mbind mi may bëgg a jàng moo ko firndeel da ko bind wax ko ko mu dégg ko mu nettali ko daf ne na ngeen def seen yitte lu leen di gunge ku leen di gunge ak lu leen di wéttili bis bu ñu leen dugalee ci bàmmeel mel ni dañ koo laaj ne ko li ñuy gunge lu mu mu ne al amalu saalih ñu ne ko lu ñuy wéttili mooy lan mu ne al iman wal islam wal ihsan dañ ne iman mooy nga teg yàlla ne doo wutal leen luy dend ak moom doo wutal kenn kuy dend ak moom mooy ixlaas bi ñu waxoon bi yonent bi jàngale ne ko ñu ne ko lislaam mooy lan mu ne lislaam mooy lépp loo xam ne yàlla digle na ko fekk sa cër yaa ngi man lu mu la fekk nga bàyyi fa dem sax ñu ne ko ihsaan nag mooy lan mu ne ihsaan mooy nga bañ a geesu nit ñi loo war a def bu nit ñi nangoo ànd kook yow di def ànd kook ñoom def suñ ko àndut ak yow def yow defal yàlla tax ishtagilu bima yusayicukum lilquburi wa yuannisukum fiha qabla alsayri ilayha wa huwa alamalu alsaalix فالإسلام والإس... فالإيمان والإسلام والإحسان هي المؤنسات الإيمان أن لا تشرك بالله شيئا wal islaamu an laa tatruka shay'an taqdiru alayhi min al ma'muuraat wal ixsaanu an laa taltafita ila al xalq in amilu amilta maahum wa in lam yaamalu amilta waxdaka lillah kon lii leer leer na nañ yëngu bu bari ak luñ mën a yëngu sëriñ bi nee na sëñ Mamoor waxal fere yi na leen yëngu bi bari na lool waaye nag ku dugg ci bàmmeel da nga xam ne yàlla faluwut man mii faluwuma lu tax mu tudd yàlla tudd ko day am ñu koy tuddoo ñoo xam dañ naan ci moom la ñuy yem ñi yem ci moom nag amatuñu aw lay ci ne ca la leen neex te jëf jooju ñu tudd ko jëf ju baax tamit tege ci kaw ndigal yàlla nee na ku ko mën a def moo xam góor la wala jigéen te ixlaas jiitu ko man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min firi woon na al mooy lan nee na dund ci àdduna dund gu teey dana dund ba faatu kenn mus kenn du ko mës a jàpp duñ ko wër di ko jàpp du du ragal wuyu téléphone du ragal jaar ci mel ni mbedd du ragal toog ci bitti mooy xel mu dal xam na xam na ne yàlla mooy joxe lu jot yàlla dana ko def te nee su ëllëgee dund ga muy dund mooy raw googee ndax lu mu defoon yàlla dana lu mu def muy benn yàlla dana fi teg juróom-ñeent muy fukk mata sonn ci dund ak lu dund ko gàtt gàtt wax na ko ñun ci alquran lu bari suñ lépp ci li ñuy jëf la aajo am na fi mu wax ci alquran ne i'malu fa sa yara allahu amalakum amalakum wa rasuluhu wal muminuun fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuun wa sa turadduuna ila alimi alxaybi wa shahada fa yunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun lu leen neex def leen waaye la gënal yàlla mooy loo xam ne bu ëllëgee yàlla seere ne lu baax la yeneen ci bi ne waaw wax dëgg yàlla yëgoon naa jullit yëpp ne bu ne lu ngeen jullit bi ngeen xam ci kii ñu ne lam doon def lépp lu baax kon te ëllëg soreetut soreetut am na fi ñuy wax ne kenn ku nekk lam doon jëf ca lañ koy fay wa ma tujzawna illa ma kuntum taamaluun bu amut yett it am na yaar ci na alquran hal tujzawna illa bima si taksibun laaj lay nuróol bu mu gën a xam ñëpp ndax nit dana saxle loo xam ne jiwu ko woon tontu la mooy déedéet ku ji sëb sëb lay saxla ku ji gajang gajang lay saxla ji keneen yi ba noppi nag di seenu banaana ndax sa bopp la yàlla ni ñuy wax ci alxuraan ne dara um ko ci suñuy jëf bu fa nekkee moom kenn nit na bàyyi xel ne jamono layow nag ñun ba noppi ci loolu nit dana dugg ci néegam taal téléphone am def ca la ñu bëgg a def ñu tuuti muur adduna bi moo ne laa defoon moom dong nga fa nekk moo ko téléphoné moom may waaye yàlla nga fa woon ndax inni bi ma taamaluuna alim waaye nag loolu suñu daree jaaxal ci ku toll ni suñu borom subhanahu wa taala ku toll ni diw sax day am am nattukaay la du nattukaay waaye suñ ñuy wax ci suñu gàtt dégg dañ naan ndax jaral na ko ko ak nu mën a amee waaye layal na ndax daf ne kenn ku ne ci yéen boole naa kook ñoo xam ne waxuma lu mu jëf waaye lu mu wax sax danañ ko bind laqad samia allahu qawla alladina qaalu inna allaha faqirun wa nahnu agniya yàlla dégg na ñiy wax ne moom daal bëri lewul ña koy wax ñoom nee nañ ñoo bari le yàlla ne loolee ñuy wax danaa ko bind atte leen ci ëllëg sa naktubu maa dal ne inna alaykum la xaafidin kiraman katibina yaalamuuna ma tafaaluun maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mooy bi ma jëkk wax léegi waaye nee na it kenn ku nekk la nga jëfoon fa nga koy fekk mu tege di la nekk wa wajadu ma amilu xaadira wa wajadu ma amilu xaadiran wala yazlimu rabbuka ahada kenn ku ci nekk lam jëfoon day dañ ko koy noteel fi mu toll nii tembe jamono yi mu toll di joxe aw jiwu kenn ku ci nekk lam lam jël laaj ko buñ ca àggee kak ko doon jox bu fa nekkut it mbind ma du fa jóge kak ko fay wuutu moo naa ko nangam nga fi jëloon taaw yowmal qiyaama nag mooy raw ndax moom kañ ko jox borom mooy taxaw naan maa maa maa maane maane maane sëñ bi la xam ne woon maane fu mu teewee moo ne duutu doon dara euh, am na fu muy wax rek itam ne lu way jëf boppam lahu aw alayhi man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha di ko sëñ bu mag bi jàngale ñu ngi ko tàmbale ci wa amma man amana wa amila saalihan fa lahu jazaa'ul husna daan ne man amila saalihan fa nafsi ku ko mën a bind ay kaang la doon waxal ak fóoree ñu bind ko mu ne bindal maas mu bind man amila saalihan fa li nafsihi mu ne laam googu li lay lay tekki man amila saalihan la laam gi di tekki mooy jamono ji ñu toll ci toppatoo lu jëm ci nawet bi ku wutu jiwu wut aw lew mooy suuf samay bay jikko ci baq bàyyee ko suñu borom ba nawet wàcc danañ ko fekke bu peesee ba am lu ne gàññ jënd ca daaba daaba la waxoon mooy fas wala wala lu nit di war nee su boobaa bu ko bu cay dox ay yiteem fu mu jëm jëfam ko fa yóbbu ndax moo liggéey ba am daaba bu dee suñ jamono mu jënde ko woto wala sax jëndul woto waaye ci xaalis ba lay paas di dem tamit bëgg a dem su boobaa ci jëfam lay war di dem falahu fa li nafsihi laam gi mooy waa ji jëf ji moo féete suuf laam masal suuf daan ne wa man asaa fa alayha ku ko mën a bind ña ko des na man mu ne bind leen ko tamaas ko ñu bind ko masque mu ne ana seeni masque suuf ñu ne ko amu ko mu ne mu ngoog ku def safaan bay itam boppam ne mi ngi mel ni ku indi ci jabi loo xam ne kenn soxlawu ko kenn soxlawu ko ba di ko waxaale banaa ko wàññil ma ak yokkal tuuti ma jaay la nee su jaba tasee loolee fu mu fanaan yi moo ko fay fanaan moo koy yenu yóbbu ko moo tax masque yëpp féete kaw man asa afa alayha bu dee suñ jamono ku indi ci ceeb bi loo xam ne dañ koy tere kuñ gis dañ koy téye laq ko jant bi loolee fu mën a nekk lu mu tuuti tuuti bi lu mu rëy moo ko yenu ndax xel ma du si jóg nu muy def ba kenn du ko gis lay nekk mën na koo tee nelaw ba ba muy tàggoog moom te foofu nag bokk yi lu fa way yóbbu aw bandal lay doon ci moom bandal mooy li mag ngi daan takk seen jëy yi muy ab ab peta wala ab pet foo séene waa ji séen kon boog jëf ju baax a nga noonu ci tënk imaan a nga noonu te mooy al <coughs> iman li ñu ko laaj yonent bi sallallahu alayhi dane mooy al ixlaas looy def nga seeree ko suñu borom subhanahu wa taala yàlla dimbalewul na ko ci nit yi dañu daan daan jàng nangam ak nangam ak nangam waaye ku ko waxut doo ko xam te jàpp ma ne ko wax nag ndax muxlis la loolu loola it firnde yi man na caa bari lool ndax gis nit yor ab téere tekkiwul na ñu ngi koy jàng te bu fekkee nekkoo fa sa morom nekku fa sa morom nekku fa moom rek moo man a wax te du wax li tax kilifa yi jiital ko ci lu bari làmbutuwuñ ko ndax lu toll ne alxuraan ku koy dénkaane doo ko dénk ku mën a doon ndax nee nañ mbir mu mën a doon boo koy dénkaane bul ko dénk sa waay sa xarit dénk ko xaritam yal na ko yàlla fay yal na ko suñu borom wutu ci njaboot gi liggéey ba mu doon taxawee it ñam ko séqaloon nañ xam ne ci daaree alxuraan yi ak majalis yi nañ xam ne àdduna du ma sa taxaw faw am ñoo xam ne bu kii daanoo it ay jàmbaar daa war a jógaat ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam di yónnee ci ab xare dane drapeau bii ki ñu koy jox mooy ku mel nii mel naa natt ko ci nattukaay yu jafe ku jëkk ñëw moom lañ koy jox te mel nii mel naa ku jëkk na xoñeet na ñëpp mu jox ko ba ko ko joxee daf ne bu ko mën a tuta yor na ko diw jël bu ko diw mënut bu yor na diw jël kon day dee ci xare bi bu diw mënut na jox diw bu diw mënut na jox diw am na ku ko mujj yor koo xam ne dagg nañ ay yoxoom yëpp mu kepp ko ci tànkam ñu gor ko ba nga xamee mënatu ko yor laata muy daanu keneen këf ko allahu akbar kon mbir mi noonu lay demee naka jekk huwa anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha dara wër sa taxaw kon ñim fi bàyyi ñëpp ñu doon yëngu bokk ak moom liggéey bi nañu xam ne kenn ko yoroon di ko doxal bu ko ñëpp séqee dana gën a yomb ndax seen soxla mënut a ñëpp di ko gën a jàll nag ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ak mboolem ñim bokkal yor nos bi ci diine ji ndax moom wax na ca wax joo xam ne ji deesu ko wax ci mbooloo mi waaye loolee mu wax ba mu koy wax na mu ko doon waxee da nga xam ne lii lu sori lu sori ci moom la te loolu muy dëgg ci moom it euh, di ñaan suñu boroom mu mayul xol buñ ko muñee lu jafe lay doon waaye nag asabru inda sadmatil ula fam ne téel rek la ñuy muñ kat doon koo xam ne day dem ba yàgg mu xam ne lii moo fi sës mu ne kon nañ ko muñ déedéet euh, yàlla noonu yàlla dafa dëggal topp te xeer ñu ci fam joxañ ba saa bu fi jógee saa buñ fi bàyyi ko ñun ñëpp na ko suñ bu wax woon ko ba muy fekk daara ja ñenu fii wuutu it ñu sagal nañ leen sagale mooy faw nit ki bu fi jógee bàyyi fi aw nit waaye na fexe ba la ñuy wax ci moom lépp di dëgg ku ko dégg doo leen jéppi te bañ di wax lu rafet kese kese lu rafet kese kese moom nit ñi mën nañ ko xàmmee mën nañ ko xàmmee koo xam ne xamu ko xamaanu ko bëgg caa wax lu rafet lu rafet lay wax rek baax na naam waaye buñ laajee ña ko xam ci ci pet ñëpp maaseendoo xam lañ ca xam doonte mën nañu wuti niñ ko waxee yàlla na yàlla defal loola segal njaboot gi it ci sa bàyyi fi nekkoon démb koo xam ne xool nañ xool xamuñ ci démbam dara lu lu baax loolu it kuy dund war nga ko fexe ndax faw nga bàyyi fi aw nit baqa u zikr firawna am na ko ñu ngi koy tudd ci alxuraan bis bu set ñu jàng alxuraan di ko tudd waaye la ko wutaleeg Moussa mooy asaroon tayyib Moussa lam yoroon mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon woote nit jaar ci jariñu jariñ ca aw nit yàlla na ko yàlla defal yaxfirullahu lana wa lakum wa i saa'iril muslimina amin